seen émission njàngum alquran seen émission njàngum alquran suba su ne saa su ngeen yeewoo daañ leen ko dëgtal fii si seen info ak seen info international seen émission njàngum alquran ngeen ànd ci ak Mouhamed ibnu Mouhamed Mountakha Sakho fii ci seen info saa su ngeen yeewoo suba su ne. aoudu billahi min alcheytaan arrajim bismillahi irrahmani irrahim qaalu da'u lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa hiya inna al-baqara tashaabaha alaynaa wa innaa in shaa Allahu lamuhtaduun قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق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 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم الله الله الله يا الله الله الله الله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 688 25 05 wala si 347 596 20 36 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si ikfa online arobas gmail point com ikfa daal yéex naa ñëw.